société tali na jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyantoo yéenekaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan ñu ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw maanaam way góorgóorlu gi jamono ji sonn na ba maara détaal yi tumuranke na ma ngi ci pression la ko waral bokk na ci dund gu metti koo xam ne fu ko waay nat daan koy passé ndax ci réew mii di Sénégal bëri na ci ay njëg yoo xam ne dafa yokk ba jéggi dayo yéenekaay gi nee na diwlin gi yokku na ceeb bi yokku gi xëy duñu xibaar naan ñu médicament yi sax yokk na yéen kay gi de Le Quotidien wax ci lu jëm ci wàllum élection locale yi nga xam ne moom la ñu dëgmal Soham Wardini mi nga xam ne jamono ji mooy maire bu Ndakaaru samp na ndëndëm daan nay wax ne ñoom seenum liste ab jigéen moo ko war a jiite waaye pare na ngir jiite wala mu nekk candidat ba taxawu Ndakaaru yéen kay gi xëy duñu xibaar naan Cheikh Abdou Bara Douli moom tim nee na candidat la ci conseil départemental ma ngi ci coono Macky Sall ma ngi nan lay def liste benn bokk yaakaar boo xam ne dina mucc ayib du am xiiroo ak ŋaayu loolee ci la Macky Sall nekk moo tax jamono ji su nelawee du nelaw ba yandoor yéen a gi di 24 ñu koy fekk fa nguuda mbuppa moom nag ñaawlu na bu baax a baax maanaam moyen public yi nga xam ne moom la Macky Sall jël di ko jëfandikoo ci tournée économique yi nga xam ne ma ngi koy def yéen a kaay gi xëy dañu xibaar naa waa ONG Jamra ñoom nag ñoo ngi alerte gouvernement bu Sénégal di ko yëgal askanu yi nga xam ne ñoo na cobbay gi ñu xëy fekk fa maître Djibril Wara jàppante bi nga xam ne doon na ko jàppante ak benn député sud africain nee na député bi moo mu daal di koy tuuma te tey bu doon lenn la loo xam ne war nañu ko defaat moom maître Djibril War nee na daf koy defaat kaay gi di critique xëy duñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum siit booti ak mbiri booy ji nekk longue yi nga xam ne gars yi ñoo ngi koy ŋawta ŋawte te kenn déggu ci procureur Serigne Bassirou Gueye ana procureur loolee la ñuy laaj Serigne Bassirou Gueye fan la dugg te nag li nga xam ne moom la ñu tàmmaloon daal maanaam yéen actualité bu xewee rek ci lu jëm ci wàllum yoon ñëpp dégg ba Bassirou Gueye mu takk kat rajo yi yéen a kaay xëy dañu xibaar naan Boy Djiné jamono ji yóbbuwaat nañ ko sa kasu bu rëbës libération yéen a kaay xëy dañu xibaar mbir mu doy waar doy waar ñaari xale yoo xam ne kenn ki Moussa la tudd kenn ki Ibrahima Ba ñoom nag fukki fan ak juróom ñoo ngi nii ba ñu réeree seeni mbokk ndax dañu leen yóbbu woon ci benn daara ci Kaolack ñu rëcc sa daara ja bëgg a dellu ci seenu njaboot ca Vélingara la ñu réer ñaari xale yooyu nag fukki at ak benn jàpp fukki at la am gi di ñu tension bu rëy am na si ndax dafa am kenn koo xam ne maanaam tudd Baye Katim Touré moom nag bi mu génnee àdduna dañu koo daal di suul ci benn terrain boo xam ne dafa amoon nag ay picco ki mbalo maanaam litige la a kaay gi ne na ko nga xam ne mooy bay Katim Touré moom nag def na lu toll ci téeméeri at ak Serigne Babacar dafa waxoon ne bu faatu nañu ko denc ci wetu njabootu El Hadji Malick Sy yéen a kaay gi ne na tension bu mag ma fa ndax Baye Katim Touré moom i maanaam mujj nañu ko a kaay gi ne na jàppante ba fukk waaye nag ñoo xam ne teg nañu leen loxo yéen a kaay gi ne ubbi nañu sab enquête yéen kaay gi di sunu lamb xëy dañu xibaar naa ñu tafatin ak boy ñaa tey jii danañu jàkkaarloo yéen kaay gi ne na le grand saut de Gaston Mbengue tey jii am na benn face à face boo xam ne nar naa tàng jër ndax face à la boo xam ne am seen Gris Bordeaux Balla Gaye numéro 2 ak Bombardier ñoom ñëpp ñooy bokk benn face à face Balla Gaye numéro 2 ma nga France waaye nag visio conférence la koy def yéen kaay gi dee sat xëy duñu ñu Sénégal leen doon may seen revue de presse